ñu dem directement ci euh, King Fat Palace googule fa la ñu des démb ca ndaje ma laataa ñu ko euh, tijji jox nañu kilifa ga Cheikh Abdou Mbacke Gaynde Fatma kàddoom yi mu def nag jur na polémique ci réseaux sociaux yi ñu dellu si waat bi alayhim wala dalin amin bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq wa min sharri hasidin wa min sharri nafathat fil uqad bismillahi rahmani rahim xul onze ba fallaq min shari maa xalaq wa min shari xaasidin idaa xasad wa min shari idaa xasad bismillaahi rahmaani rahiim xul onze ba fallaq min shari wasaasi xannaas xul onze ba fallaq min shari wasaasi idaa xasad bismillaahi rahmaani rahiim xul onze rabbi naas maliki naas ilaahi naas min shari wasaasi xannaas allazi yuwaswisu fi suduuri naasi minal jinnati wannaas mi ngi noonu kooku mooy Cheikh Ahmadou Cheikh Abdou Mbacke Gaynde Fatma su ma juumalee ci eh, tur wi Assane mu mel ni nag eh, njuumte googu maa ngi koy wax léegi bu fekkoon ni sax eh, nekkuñu ci weekend bi dañ ko yóbbu victime di net ndax sëriñ bi Mbacke victime la ndax tabarka lu nekk ñu koy wax naan sëñ bi jàngul ak nangam ak sàng mais jàpp nañ daal ñu lu bëri jàpp nañ li ko yóbbee lépp nit yàgg naa juumte amul problème mais lu tax mu dem fekk Amadou Ba ak président Macky Sall réew mi xaw leen a mere wala ñu mere leen mu dem fa di jël kàddu ba juum moo tax mënuñu ko baal ndax noonu la demee non non mm, nit ñi merewuñ leen sax ndax ay nit a leen fekki. Hmm. moom mii ku ko gis xam ne dañ na ak réer. moom waaw. te Sénégal gépp d'accord nañ ne ku mokkal alxuraan la réew mi ak bitim réew ndax it alxuraan ñor na ko lool. Sénégal gépp mais dafa dafa d'accord nañ ne ku mokkal alxuraan la voilà mais dafa am saari nit yoo xam am na saaru jataay yoo xamante ni wala am na ñoo xamante ni maanaam nit ñi dañ leen a joxañ dañ leen a bëmax fenn ndax. yow boo dee xool yi ngay def jàngat yëpp naan diw taril dañuy juum te ñooñu ñëpp daanaka ña nga fee. léegi nag ñooñu. <laughs> waaye waaye. waaw waaye ba ba ma naan ko ba ma koy defal lu dialogue boobu. waaw pourtant boobu mi ngi yeewi. mi ngi yeewi boobu nekkul woon fee. non wax ma moom tari alxuraan laa wax. dafa am ñoo xamante ni. Mhm. muy ñii toog ne alxuraan. waaw maanaam dafa am loo xam ne boo nekkee ci ñoom ak loo ko mokkal mokkal dafa am loo xam ne dañu ko rocc ci ñoom. Ah. dañ ko rocc ci ñoom boo nekkee ci ñoom nag bëgg ko wax day fekk day deñ da ngay làmb ba sonn doo ko fekk. ah lu ñu rocc da nga naan bëri wax ko da wax ba sonn doo ko daj. Hmm? te da nga koo def si sa bopp bi mokkal ko rumbux jàngal ko ay nit bañ mokkal ko mais am na ñoo xam boo nekkee ñoom doo ko mën a wax ndax dañ ko rocc ci ñoom. dafa am lu ñuy rocc ci ñoom. ñoo xamante ni nag yàlla xam yàlla xola maam ak teen gi voilà ñi ñi am na ñoo xamante nii laa wax am na ñoo xamante nii bu ñu dajee seenum ndaje hmm. maanaam yow nga dem fa hmm. te ndaje mooma tey jii yaakaar naa ni du ndaje moo xamante nii li si li la si war daal mu tëgg mooy génn ndànk sa ndaje ma ndax ndaje moo xamante nii boo bëggee tari Faatiha rek mënoo ko sa ndaje mooma wax dëgg yàlla jot na sëkk nga génn ndajam te ñëpp xam nañ ni jàng na ko ba mokkal ko ba jàngal ko ay nit bañ mokkal ko ba mu ni ar ah, waaye ah, dafa yor daara waaw waaye yor nay daara yor na lépp mokk hmm. rumbux alxuraan ah, mais dafa am ñoo xam boo nekkee ci ñoom laa hmm. doo mën a tari dara ah waaw kon nag ñii nañ jot na sëkk ku nekk teeg ñoom bu la joxe kàddu bul jéem a tudd benn aaya bul jéem a tari dañ koo ñaan loo asan moom ngan leen jox leen keneen xam nga man si bi bi affaire xam nga xaarum dama la hmm. xaaral bi dagg-dagg yi bare ku nekk envoyé ma ko man dama dem xoole ji nday vidéo bi ma dem xool mais moom bi mu ñëwee. Mm-hmm. commencé woon na sax di wax ay kàddu yu rafet ñu ni ko sëriñ bi ñaanal maanaam ñaan lañ ko santoon. Mm-hmm. moo tax ma ne moom lii rek la waroon def. waaw loolu nag mu ni leen jox leen keneen mu ñaan ndax yéen tudd ab aaya si yéen wóorul ndax aaya ba day am lu ñu siy rocc <laughs> doo ko mën a daj saa boo nee bëri ñu galgal ko dafa am leneen luy galgal aaya yi ñu xam ne ñoom dañ koy tudd ndax tudd la wuñu leen ay aaya waaw kon daal loolu moo gën maa ngi jot sama benn xarit sax ak ñeneen ak ñeneen ñu ni yéen da ngeen a jàngut waaw maam ñu ni Sénégal yi dañoo jàngut mais euh, bi mu taree affaire bi normal na mais la sa des daa boori faatiha bi ak ak kii bi. ak fallax bi ak fallax bi di ko waaw di ko di ko jaxase. loolu ak ñaan la goo xamante ni mag ñu njëkk ne dañ ko daan ñaan da ngay jël sa fallax ga dóor jël si naasi gi dugal jël faatiha dugal. <laughs> di ko di ko jaxasi noonu comme ni ah, ñaan spécial waaw ak ñaan la spécial ah, kon sëñ bi juumul juumut dafa am lu loolu saa loolu dagga dagga juumut voilà dafa jaxasi affaire yi xam nga da ngay dégg ñaan boo juutalee nangam ak boo jëlee si biir dugal si biir bii noonu la def bi mu taree ba ñëpp xam ne man nañ ko léegi dafa jël affaire yi jaxase ko nag. Ah. loolu pour nga comme te daara ji ni doon jàngalee maanaam euh, alam tara nga tari ko. te du am keef. alam tara sadra wa dax naa an wisra allazi an xala sara war a ah, faana waa jërëjëf jërëjëf loolu nag bu fekkee ayoo doonab jàngkat doo ko mën a xam. ah kon jaxase yëpp ay ay am ñaan gum doon roof ak ñaan la ak ñaan la jaxase noonu <laughs> loolu xamu leen ko. macha allah. Mhm. Euh, kon ba mbir maa ngi doon alaaji loolu jàngatam asan la yow léegi mbir mi bi nga gisee King Fahd Palace loolu daje fa sëriñ bi ñaan am njuumte ñuy daj dagg vidéo mi tasaare ko yow bu jàngat bi nga ci def lan la ci Sénégal yi ak sëriñ bi. na asan nag asana aay asan lay jàpp tucc euh, sedd mu ñëw nag jël pomaatam. <laughs> daraay mu la ko sedd xoolal tappale yi mu def rek daal na léegi. Euh. ak ñaan yéen a jàngut waaye dafa jaxase saare xoolal lay wi lay wi. waaw lay wi. lay wee eh, jub mais li mu wax ne sëriñ si ñaan dañ koy def dañuy jël ci saar wee jël ci saar wee jël lay lay la waaye lii asat day lay yàlla xam nga ni xam nga day lay xam nga ni suba ba léegi yow xam nga ni dafa ñëw bu fii ah. dóor ba mu neex ko soog a ñëw nag di ko layal ah. di ko layal non man jàpp naa ni moom euh, mën na saari. mën na ko waaw jàpp naa ne loolu. dafa juum daal. waaw waaye jàpp naa ni tamit li Assane wax reelu na. mais aussi tamit pareen saa il faut ñuy bàyyi xel parce que yenn yi. Euh, suñ borom mooy wane boppam. Euh, ci façon bu ne. xam nga bu ñu demee ba léegi falaxeek naa si të. ab sëriñub daara. Mm-hmm. koo xamante ni ki jaay Assane nee na jàngale na jàng na ko ba koy jàngale. fa la naa si tëkko. Mm-hmm. Assane yor loolu mbir sunu borom la. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi dégg. donc loolu day wane ni rek ndaje mi ci jëmmi boppam moom <laughs> am na lu ci ne parce que saar yooyu tamit boo ko firee ay saaru lan la. musloo. waaw musloo waaw. léegi bu fekkee ne bu fekkee ne. ñi war a muslu leen war a musal hmm. ñoom ngay tari saar boobu ngir muslu ci waa ngir musal leen far nga juum waaw maanaam moom doon tari ñoo ñu war a musal ñoom ñoo war a def loo xam ne bi senegal dinañ nekk ci dal dinañ nekk ci jàmm dinañ nekk ci dafa tari woon saar woowu waaw pour muslu leen ci musiba waaw ak ay ko eñaan ak yooyu ci la saar yooyu waaw si loolu lay wax far mu waaw far mu faqasaloo nii. alhamdulilah loolu mbir la yoo xam ne. xam nga ni kii am na kat dégg nga alhamdulilah. yow kii doon tarli pour musal ci ayu ko iñaan ak ayu ko soxar ak. waaw far juum nga <laughs> yaa ngi dégg est xam nga ni loolu. loolu mooy loolu mooy son bu li li li li baatin bi ci mbir mi. Mm-hmm. parce que mbir mi mbir mu am solo la. Hmm. parce que saar yi mu tànn. Hmm. di ko wax. Hmm. li saar yooyu war a di firi. comprendre nga euh, nga faqastalu ci. ba ñëpp di partager loolu nga xam ne ndaje ma finalement sax siiwut. kiiwut mais li nga fa kii sëñ bi def. looloo gën a fës ci réseaux sociaux yi. la loolu day wane ni mbir sunu boroom la. loolu ña nekkoon ci ndaje ma war nañ cee am jàngat gu rëy rëy rëy rëy. Mm. d'accord daal di xoolaat yëf yi. Mm. en tout saar yu mu jëloon ci nettali ñi mag ñi nee nañu. Mm. Seydi Hadji Malick Sy nee nañu bi mu ñëwee bi mu jàngee euh, fallax yi googu mm-hmm. ba ca fin gi mi ngi wax ci xaasini isa xasada la Seydi Hadji Malick Sy doog gëm ne maanaam iñaan am na mm-hmm. moom pour moom nit amul iñaan ci xolam mm-hmm. waaye bi mu jàngee ci alxuraan fekk ko fa rek la xam ne ah, kon am na waaye mosul gëm ni loolu am na léegi nag sëriñ bi nag bi ñu muslu ci ayu ku añaan ak ku soxor ak mm-hmm. yooyu daal mm-hmm. tabarkàlla ci la kii xam naa yàlla kii mm-hmm. jërëjëf kon mi ngi noonu ñoo ngi koy siyaare bu baax di ko wax ni ko kon ñoon la yàlla rek moo dul juum ku nekk mën nga juum dafay am euh, al amin mas na ci nettali ca Makka nee na imaamu Makka la xuma midin kan la ci wax waaye daal nee na bi ñuy julli fajar ci faati xale juum te moo nekkoon imaam ba kon boog tabarkàlla sëriñ bi Mbàkke